Sëriñ Galas man sama xol dafa sedd du ma ci mën a wax lu bari maa ngi ñaan yàlla daal nu ngi yëngutu i wax ci li ñuy wax muy dal ay ndoxi taw di taw ndox mi taw doon ay dox yàlla nañ yàlla may carte yu toll noonu ci barke borom Tuubaa kon li ma wax rek sant naa sañ Galas ndax maa moom du du léegi yaakaar naa bi may am lenteeg moom boobu sëñ Baara nekk gub xalifa kon sama xarit la. nangu naa sama xarit la fii ci dëkk bi ku ma ku ma ko fi gën a xaritoo amul ndax bi sëñ Baara nekke xalifa yi dama daan dem ci moom ñu bari daan nañ ma xool ba yow lan ngay dugg buy xaritam toolee mbàkk mbàkk yi toog ñëpp daf may boole ci boppam ci lu a jafe kon kon loolu duma ko fàtte sama xarit la si bi boole wuñu ma ci bu ci sëñ galas nekkee day mel ni maa kon dinaa ko man bañ xam ne jàppale naa ko loolu mooy li nekk ci man leneen nag loo lu lu waay jeex doo ko ci gis fas naa daal yéen a jàppale ko ci li ma xam ci sama xam-xamu politique li ñuy wax nag onze tonnes la wax man dañoo waxoon onze tonnes bi ñu defee daan onze tonnes dama daan def ni man du nangu zone parce dama am Touba gépp moo tax ma ne woon damay def milieu de terrain milieu de terrain kooku maa ngi koy jëfandikoo ba tey te fas naa ko yéene dox ubbi naa sama campagne tey daal fas naa ne yéenee wër Touba doole ji na ba ko matee nañ ko wax président dama ko bag a liggéeyal te damaa bëgg sëñ Gallas gagné ndax ginnaaw njiglaayam la woon dellu si delloo si na ko ci liste bi dañuy bëgg gis mu gis lu nga xam ne lu leer nañ ci la kon maa ngi koy sant di ko gërëm wax ji jarul guddal waa marché Ocass ñi ngi fi waa marché Mame Diarra ñi émission maa ngi sant ñëpp waa kër sëñ Cheikh Seye sëñ Mourtala ñëw na maam Seye mi moom benn lañ jarul ma koy bokk yëf yi aw Fall mi ngi a ngi nii kon jëf yi jarul guddal mbooloo mi rek ñoo koy wane mbooloo mi nag ñun liñ leen di wax yàgg na ñooy dem ci élection ñu di ko ñàkk bu leen dof dof lu nag ren lu fi am la am am na fi li président def gars yi nañ ci ba noppi président dafa yónnee moyen yi mat sëkk moyen yi nag mi ngi ci ñun bu leen yaakaar ne dañoo ñëw di wax te li ñuy wax du ngeen jot seen i moyen yaakaar naa 14 millions wala 15 millions ñun mat yàlla rek jot nañ ko sans compter financement yi Macky Sall kon suñ jotee 15 millions buñ jógee ni danañ dugg ci terrain bi yaakaar naa ne li ñuy danañ ko am parce que ñeneen nag ñi am carte ten bind leen ah ñoom ñoo ciy gën a xeej loolu daal xooloon nañ ñu ngi sant sëñ Galas Mbaam. waaw Madiyana ñu Serigne Cheikh Ahmadou mbakke Serigne Cheikh Say sunu wayjur sunu Serigne di yëkkati nuyoo bu tedd di ko teg ci loxo Serigne Mourtala ak soxna Maam Say ñu jàllaleel ñu ko ci sunu wayjur woowu di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te weral ko di yëkkati nuyoo bu tedd di ko teg ci loxo Serigne Alla Silla ni mu ko waxe maa moom yàgg nañ du tey démb la nuyu Baye Mbacké rakkam bi mu bokk magam bi mu bokkal nday ak baay ak waa Madiyaana ñëpp responsable yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu turu mbooloo mi ñu àndal yëpp fii li ñu fi dajale lenn rek la mooy dikk ngir ñukkal ak sargal Serigne Alla Sylla ci taxawaayam ak yitteem ak coonoom bi muy daj ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu nekk ci loo xam ne nag li ñu ci soxla yàlla sunu borom defal ko ci lu yéeme mooy am na mbooloo déggoo na ak mbooloom am na fum mu leen féete ba saa leen soxlaa ñu wuyu ko kon ñi gi lancé appel ci mbooloo mi ñu xam ne li ñu nekk ba taw bi fekkuñu ci war nañ ko sant yàlla mais ñu gën a góorgóorlu ci li ñuy may ndam li ñuy may ndam dag weesuwul li ñuy may ndam nag weesuwul ñu bàyyi xel ne wax nañ ko waxati ko. jërëjëf sëñ bi mi ngi noonu. réalisation yi nga xam ne son excellence président bi Macky Sall def na ci dëkk bii rek jar na jàppale ko. li sëriñ bi wax ci moom jar na jàppale ko mais liggéey bii mu tàmbali ci senegal te war koo yeggale nekk ci biir mandam yàlla dogal ñuy taxawal fukkeelu ensemble ak ñeent ba république bi taxawee ba tey wax nañ ko waxati ko jëfi président Macky Sall ci Touba wala ci Sénégal. Abdoulaye Abdou euh, Senghor jaar na fi jëf Abdou Diouf jaar fi jëf Abdoulaye Wade jaar fi jëf mais jëfi président Macky sal mooy ndey di bàyyi jëfi ñooñu fi jiitu ñëpp ci lu wér ci lu am firnde am seere loola nag la koy dëgël mooy gën a laxasaayu ñu ànd ak yéen jàppale ko ba bu ñu àggee ci le 31 juillet képp ko xamante ni dem nga ci urne bi nga jël bulletin bi def ko ci enveloppe bi te bañ koo tëj te voté te diggante bi képp koo xam te war koo soññi na nga ko soññi ci liy doxal réew yi ak liy tax réew mi jàmm ji gën a sax fi mu nekk li mu mën mi ngi koy def guddi ak bëccëg suba ak ngoon kenn ku nekk gis na liggéey bi mu def ci biir Touba loolu la def ci biir Sénégal gi yëpp kon moom yitteem mooy taxawu sénégalais yi ndax sénégalais yi ñoo ko fal dafa des nag ci benn pàcc boo xam ne mooy pàccu assemblée nationale te le 31 juillet incha allah lañ ciy dem nañu fexe ba ñun waa Touba incha allah ñu gagné ko à quatre-vingt-dix pour cent te war naa mën a nekk te waa Madiana am nañ ci cër bu rëy rëy ñoo ngi leen koy fàttali te di leen ko yëgal ak saam ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah ba le 31 juillet kon nañu continuer liggéey bi ci porte à di soññ nit ñi guddi ak bëccëg suba ak ngoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala